salaamaaleykum maa ngi nuyu waa daayira ci ne fu mu nekk ci bi di ñaan xaj bi ngeen gis nii muy Gana Messere vidéo bi mu dugal noonu bu naa tey ku ci nekk ci bi na jàng yaa muntaximu mille fois yaa muntaximu ku ci am saa rek nga na yàlla allahumma dammir wa axlik Gana Messere ajilan ñaan googu nekk suuf nga jàng ko allahumma axlik wa dammir Gana Messere nga jàng ko soo defee saa rek nga jàng ko soo paree nga tëjee ko trois cent teg ci trois cent treize suma raddat naaw asfala saafilina suma raddat naaw asfala saafilina 313 su ngeen paree ngeen tëjee ko tabbat yadaa 100 fois waaw tabbat yadaa bi nag ku ko mën nga ut xorom sans xorom xorom boo jël rek nga jàng benn tabbat yadaa teg ko bu saa yi tegee pare nga jël ko teg ko ci taal teg ko muy bax ba ngeer fee boo defee benn rek benn tabbat yadaa boo jàng la allahumma dammir waaxalik da Ganna Messere yàlla yàlla nga damm yàlla nga toroxaal yàlla nga rey Ganna Messere ku ci ne def ko. tey ndigal boobu laa jox képp ku ko defu rek war nga Seexu Tijaan salaamaaleykum wa rahmatullah Canada ak États-Unis yëpp a fi ñu nekk fu ngeen nekk yéen ñëpp confiné ngeen yéen ñëpp na ngeen ko def ku ko defu rek yàlla nga dog ci tarixa bi ci barke Baay Ñas